auzubillah bismillah inna wala yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi Touba Milano ñu ngi leen ñu nuyu di leen ziar bu baax di leen baal àq te di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla sunu borom yàlla na yàlla boole jégal di jiite sunu nuyoo ak sunu ziar borom Touba Serigne Mountakha Mbacké di ñaan yàlla sunu borom yàlla na su mën gudd la fanam wérul ko yàlla na su borom yokki fanam defal ko shifaay biir ak biti ba mboolum li mu bëgg liggéey Serigne Touba yëpp ñu ànd ak moom ci ak salaam di yëkkati sunu kàddu ci turu Baye Dame Gueye mi nga xam ne mooy jëwriñ kër Serigne Touba moom it mu tekk ci kilifteefu sëñ Moustapha Mbacke imam ak sëñ Moussa Dieng ak ci euh, njiitalu commission culturelle bi nga xam ne sëñ Ibrahima Ndiaye xali moo fa nekk sëñ Fallou Guèye ak sëñ Moustapha Diakhaté Kamal di fàttali mboolem waa Touba Milano bis bi nga xam ne moom la ñuy def weer wu nekk mooy dimanche mujj ci weer wi muy wàccaayu Touba Milano wàccaay màggal gi ak gàmmu gi xam ngeen ni fii ci Milan weer wu nekk dimanche mujj bi mooy bisub màggal gi incha allah kon dafa mel na weer wi ñu nekk muy weeru novembre ku xool calendrier bi ndax ñu ngi ko natt ci calendrier tubaab bi dimanche ba ci mujj mooy le 27 novembre incha allah kon le 27 novembre 2000 2022 euh, mooy doon bisub wàccaay màggal Touba Milano ñu ngi ciy woon ak mboolem taalibe yëpp ndax bis boobu Serigne Touba moo ci jox ndigal Serigne bi moo ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la su bis bi ñëwee loo mën nag ma ko ci defal wax ñu diggante ginaar ak gëléem bu ci kenn xeeb ginaar bu ci kenn yéem gëléem kon loolu moo tax ñun tamit ñu am yéene waaj waajal bis boobu ndax bëgg nañu bu ñu te yeggee am ci ngërëm Sëñ Tuubaa ndax ngërëm Sëñ Tuubaa lu waaye di wër ci àddina yaakaar naa ngërëm Sëñ Tuubaa moo ko moo ko fete kaw kon képp kuy dégg sunu kaar ñu ngi lay woo ci liggéey boobu incha allah 4 heures dañu ko tàmbale ci kër Sëñ Tuubaa gi jàng alxuraan jàng xasida waxtaane sëriñ bi bu ñu paree paree sunu kaye bi ñu tuddee nag kaye màggal nga xam ni mbokk taale bind nañ ci ku ci nekk la nga waajal ci wàllu addiyee boo ko indaalee ñu defal la ko ci ndax 100 euros moom la ñu sasoo muy benn gàtt maanaam murid bu nekk war ngaa joxe benn gàttu màggal loolu nag ñu ngi ko ma ci 100 euros kon loolu lañ doon fàttali yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm te yàlla nañ ci daje ak tawfeex Sëriñ Tuubaa ci barke kii ki fi nekk te muy Cheikh Modou Mountakha Mbacké yàlla na ko yàgg a woote gën gi rafet di wokke ci barke borom Tuubaa ñu ngi tuubal ñëpp na tey jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu